أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله mbokki jullit yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli sëlmal ci ab yeneentam ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla te muy sax ci ndigal bàyyi tere gannaaw loolu borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ñuy wax ci alquraanul karim إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم hada ma kanastum li anfusikum faduqu ma kuntum taknizun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñi ci xadiisam bu wér bu nekk ci saxiixu muslim ne maa min saaxibi dahabin wala fidda laa yuaddi minha xaqaha إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة xatta yaqdiya allahu bayna al ibaad mbokki jullit yi borom bi subhaanahu wa ci laaya ji ma jàng dafay tëkku nit ñi nga xam ne dañuy yor alal asaka war génn ca duñ ko ca génne kanz buñ ko waxee mooy alal joo xam ne nii nit ki da koo yor aqi jaambur nekk ca ca mu bañ a génnee aq joojee kooku mu ngi mi ngi ci li ñuy def mi ngi def li ñuy wax kanz ma ngay denc denc nag denc loo moom waaye ku denc ba dencaale loo moomul kooku porobalem la nee nañu ñi nga xam ne dañuy jël or ak xaalis di ko denc ci anam googu ca duñ ko dépenser ci yoonu yàlla nee na ñooñu na nga leen bégal ci mbugal mu tar moo xam ne nii mi ngi leen di xaar kañ nee na ca bis ba nga xam ne yow ma yoxma alayha fii neeri jahannam bis ba nga xam ne alal yooyu dañ koy soppali mu nekk ay weñ ñu tiimale ko sawaraw jahannam tàngal ko ba mu àgg fa tàng mën a yem nee na bu boobaa nag ñu cay ñaas seeni jë ak seeni wet ak seeni gannaaw loolu la laaya bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa ci leeral xadis boo laaya jooju mu ne amul kenn koo xam ni danga da moom or walla nga moom wurus am ko mu mat nisaab nga bën ca génnee asaka lu dul ne bu yowmal qiyaamee or boobu ak xaalis boobu dañ koy soppi ay àlloo yi weñ di ko tàngal ci sawaraw jahannam ba mu àgg fa tàng mën a yem ñu cay ñaas seeni ab jaham akuk wetam akuk gannaawam nee na nag loolu ñu koy def buñ ko defoon benn yoon day gàtt buñ ko defoon benn yoon benn bis day gàtt benn at day gàtt waaye nee na loolu dañ ko koy def ci bis boo xam ne nii tolluwaayam mooy juróom fukki at juróom fukki junni at fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sanatin juróom fukki junni at lay tollool ci buñ ko nattoon ci sunu at yi yàggaay ba ñu ko fay defal nag mbugal moo moo xam ne nii diir boobu yépp da cay dañ ko koy mbugale ca nee na yooyu ñuy séndal di ko ñaas buñ demee ba bëgg a sedd rek ñu séndalaat ko di continuer di ko ca ñaas ba keroog yàlla di àtte jaam ñi kon loolu mu mel ne ab tëkk bu rëy la boo xam ne nii doy na ci nit ki bañ a génnee asaka ci alal ji nga xam ne asaka da caa war noonu mu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer leera la ci or ak xaalis noonu la ko leera la ci li nga xam ne nit ki da koo moom muy ak jur ak li nga xam ne da koo moom muy am mbay yooyu yépp leeral na ci lu mel noonu teg ci tëkk yu mel noonu kon bokk yi azaka mooy ponkum ñetteel bi ci ponki lislaam yi waaye tam mooy ponk bi nga xam ne fu ñu tudd fu ñu tudde julli rekk daat ko fay tudd alquran barab bu mu ne aqimu salaa da cay teg wa aatu zaka taxawal leen julli waaye joxe leen asaka loolu nag day wane importance bi nga xam ne asaka am na ko ci lislaam ndax réerewu ne lislaam dañ koo dañ koo tabax ci juróomi keno ba ca jëkk mooy ñaari seede yi waaye ba ca topp di julli waaye ba ca topp di joxe asaka añ màkka doog ñëw ak koor ak añ màkka doog a ñëw asaka nekk loo xam ne nii alquran yoonal na ko sunna yoonal na ko waaye xeet wi yépp tam mànkoo nañ ci ne asaka lu war la farata la ca alal ji nga xam ne dañ ko caa war a génnee asaka nag buñ ko doon xamle dañu naan àq la joo xam ne nii sunu boroom moo ko natt ba ne nii la toll ci yenn ci la alal yi du alal yépp yàlla sunu boroom moo ko natt ne nii lay toll ci as sàngam boo ko amee na nga ca génnee lu tolloom nangam jox ko ña nga xam ñoo ko moom bu ñu demee ba charte yëpp daje ca mooy alal jooje bu dee alal ju ñuy charte mu atal mu atal bu fekkente ne nag charte ñu ca atal jërul nga cay wax mbirum atal atal mooy mu am ci yow at ba noppee tam nag na mat nisaab bu fekkee alal ji ñuy sàkku mat nisaab na mat nisaab bu dee alal joo xam ne nii sàkkuwuñ mu mat nisaab itam nag bu boobaa dañ ko cee génnee donte loo loo ca am rek day génn alal yi nga xam ne nag sàkkuwuñ ci mu mat nisaab mooy lu mel ne euh, mbell yi nga xam ne day génn ci suuf mbell yi génn ci suuf ak lu mel ne denc yi nga xam ne nit ñu jëkk ñi dañ koo dencoon ki dem ba fekk ko fa foofa lam fa génnee du ñu wax ne day mat nisaab wala du mat nisaab nu mu toll lu nekk rekk dañ koo war a asakaal cër boobu nga xam ne yàlla natt na ko ci lenn al ci yenn ci alal yi wax ne nañ ko jox ñenn ci doomu aadama yi loolu mooy asaka asaka nag daa am ay alal yoo xam ne nii dañ ko cay génnee ak am alal yoo xam ne nii duñ ko ca génnee nun nag bu ñuy wax dañuy faral a tudd rek yi nga xam ne dañ ko cay génnee nga xam ne lépp lu ñu tuddul nga xam ne loolu moom dañ ko ca dul génnee moo tax tudduñu ko waaye alal yi nga xam ne dañ ko cay génnee ba ca jëkk mooy bahimatul an'am mooy bàyyi ma yi bàyyi ma yi nag bàyyi may jur gi moo tax ñuy wax muy giléem ak nag ak xar ak bëy beneen bàyyi ma boo gis asaka du ca génn wala bu cay génn ci geneen anam la cay génne waaye du jaage ni moom ci boppam lañ asakaal ay fas mën nañ koo asakaal bu fekkente ni nit ki dafa yor ay fas yoo xam ne nii dafa koy liggéeyee waaye du jaage ne fas ya la ñuy asakaal waaye la gé la fas ya génnee la ñuy asakaal kooko marchandise lay dugg day dellu ci marchandise ni nga xam ne yii nga xamee itam dañ leen di asakaal muy ay giléem ak nag yooyoo tam lépp loo xam ne nii dañ ko ci doon liggéeyee nga xam ne yow liggéeyee tax nga di ko wut bu boobaa boo koy asakaal la mu génnee ngay asakaal waaye du moom ci boppam ngay asakaal waaw nañu xàmmee loolu bu baax nit ki léeg-léeg day yor ak jur goo xam nii dafa jub jur googu la jubloo moom léeg-léeg mu am jur goo xam ne nii moyen la pour liggéey bis bu nekkee moyen pour liggéey nag moom kenn du ko asakaal waaye la cay génn bu atalee lañ koy asakaal kon bi ci jëkk mi ngi noonu mooy giléem nag ak xar ak bëy lu ci nekk danañ ca waxaat tuuti donte fu ci nekk dañ fay coof tuuti rek ñaareel ba mooy am naq daani ñaari weccet yi ñaari weccet yi nag buñ ko waxee mooy or ak xaalis or ak xaalis dañ leen di génnee asaka niki noonoog lépp loo xam ne nii dafa yor maanaam or ak xaalis ca loolu mooy xaalis bi ñuy yor nii di ko moo xam CFA la dollar la lu mu mënti doon xaalis bii xew xaalis boobu atteb or la yor ak atteb xaalis xaalis bi ñuy wax argent ah. kon yooyu dañ leen di génneel asaka muy ñaareel bi am na ñetteel bi mooy urudu tijaara mooy marchandise moom nag lu yaatoo yaatu la marchandise waaw ah. lu yaatoo yaatu la lépp loo xam ne nii nit ki da koo yor ca jublu ca di ko wëlbati di jënd di jaay loola marchandise lay doon bul xool nag marchandise ma lu mu mënti doon bu fekkonte ne ay ay ay ay ay ay ay euh, nag laatam wala mu nekk ay giléem marchandise lay doon foofu waaw ah, du ma ne su ma amee fanweer yi nag dama koy asakaal déedéet mën na damaa am téeméeri nag waaye téeméeri nag yoo xam ne dama koy liggéeya duma leen asakaal de du leen asakaal waaye lañuy ñuy génnee laay asakaal ni ki noonu ay gileem moo ki oto yooyu yor di di ca transporter ñoo yem oto yooyu lu ñu bari bari bari doo ko doo leen asakaal ñoom seen seen li liñ jaroon waaye la génne moom ngay asakaal loolu ab sew-sew la boo xam ne nii bu jara xam ci mbirum asaka bu ñu weesoo marchandise dañuy wax alxaariju min al ard lu génn ci suuf lu génn ci suuf nag léeg-léeg day nekk ay meññat lu mel na ay pepp ak i meññat yooyu danañ ko génnee asaka doonte am na ca yoo xam ne nii deesu ko génnee asaka wala bokk ci lenn ci boroom xam-xam yi bokk na ci liy génnee ci suuf itam ñi di ko asakaal mooy almaadin war rikaas maadin mooy mbell yi lu mel ne jamaa bu génn lu mel ne pétrole bu génn lu mel ne gaz bu génn lu mel ne yooyu yëpp moo xam luy yol la wala dafa nekk lu maanaam lu tooy la wala dafa nekk lu tooyul lu ci manti doon dañ ko war a asakaal kon Sénégal tey jii ñi ngi wax naan gaz dana fi feeñ gaz a ngi fi feeñ pétrole di fi feeñ zircon di fi feeñ ah phosphate daana fi feeñ ak yeneen mbell yu bëree bari yooyu nga xam ne alal yu bëree bëri la ca yooyu borom bi subhanahu wa taala dafa ni sëkkuuma maanaam du du ma ci chart sax mu mat nisaab du ma ne la bu àggee fenn lu ci mën a génn rek dañ ko war a asakaal yooyu tey bu fekkoonte ni dafa dañ koo asakaal asaka ji ca war a génn képp mën naa yor réew mi mën naa la ca war a génn ci asaka képp mën naa tax benn faqiir dootu nekk ci senegal bi ndax loola dafa bari kon yooyu mooy alal yi nga xam ne dañ koy asakaal ñu wax tuuti kon ci benn bu nekk ñu wax ca tuuti bahimatul an'am bi ñu waxoon ne mooy giléem nag xar ak bëy moom day dees koy asakaal bu fekkente ni dafa nekk luy wët luy wët nga xam ne day wëtti di lekk ci àll bi nga xam ne ab dundam li ci ëpp ci àll bi la koy jële waxuñu ne doo ko xont waaye bu fekkente ni li muy dundee li ci àll bi moo ëpp li muy dunde ci àll bi moo ëpp li muy dunde ci kër gi kooku dañ naan xar dañ naan xar muy wëtt la wala bëy wuy wëtt wala nag wuy wëtt wala giléem guy wëtt bu boobaa dañ koy génneel asaka waaye bu fekkente ne nag dafa nekk loo xam ne nii yow yaa ko yoral sa bopp di ko xontal sa bopp wëttul ah bu boobaa asaka dootu ca génn looloo tam lu mat a xam la li ñuy asakaal mooy liy wët waaw bu fekkee day def ñaar yépp dañuy seet ba ci ëpp rek bu fekkee xont baa ëpp wëtt ga mu dem ci ak liñ dul asakaal bu fekkente ni wëtt gaa ëpp xont ba mu dem ci li nga xam ne dañ koy asakaal ci kaw nag mu mat nisaab jur moom dañ caa charte nisaab bu ko defee nisaab bi dañ koy tudd noonu pour ku xa koo xam ne nii am nga lu mat nisaab rek nga xam ne asaka war na ca waaye faram-fàccee nañ koy la nga cee war a génnee nag bu boobaa foo mën a nekk dellul ci boroom xam-xam yi ñu leeralal la ko ndax loolu xajul ci ab xutba waaye daal nisaab bi maanaam bu dee ci giléem ku am juróomi giléem rek xamal ni commencé nga war a génnee asaka bu dee ay nag nga yor yuy wët boo amee fanweer ko commencé nga war a génnee asaka su fekkente ni bëy nga yor ak ci xar wala ay xar boo amee ñeent fukk xamal ni génne asaka commencé na di war loolu daal nga xam ko bu ko defee nag la nga cay génnee ak euh, bu lu muy gën a bari nan lay doon loolu moom day faram-fàcce yoo xam ne nii day laaj nga dem ci ab boroom xam-xam mu leeral la ko waaye yow mii boroomi giléem daal boo amee juróomi giléem yoo xam ne nii dañuy wët demal ci borom xam nga ne ko lu ma ciy génnee asaka am naa fanweeri nag yoo xam ne dañuy wët demal nga laaj am naa ñeent fukki xar yoo xam ne nii dañuy wët demal nga laaj waaye du yem rekk ci ne mat na loolu waaye day mat loolu nga yor ko lu mat at moom ko lu mat at bu boobaa la ca asakaay doog war bu fekkente ni nag jur googu da koo yor comme jule yi nga xam ne dañuy jënd ay jur mën nañoo dem léegi jënd lu mat téeméeri xar téeméeri nag wala téeméeri giléem ah kooku marchandise la yor la cay génn moom lay asakal waaye du ne duñ ne yor na téeméeri gileem rek wala téeméer donte marchandise moomu dafa am ci moom at itam bu boobaa du ko asakal ci asaka jii ñuy wax waaye lu ca génn nag lu ci génn loola dana ko asakaal niki noonu tam loolu marchandise la ci urudu tijaara lay dellu moom ci boppam da koy xayma da koy xayma na mu toll mu asakaal ndax awroodu tijaara lay daal di dugg marchandise lay doon kon loolu rek lañuy wax ci euh, bahimatul anaam an naqdaani ñaari weccet yi ak li taxaw seen place léegi ca li taxaw seen place moo gën a bari mooy xaalis façon xaalis yi nga xam yépp moom dañ cay chart moom itam mu mat nisaab di ca charte itam mu atal mu mat na nisaab danañ wax nisaab bi lu muy toll di ca charte mu atal nga moom ko lu mat at bu ko defee ndegam dañ ne ñaari wecciti bi ci njiitu mooy or or ku ca am vingt et un misqaal misqaal gooroo lañ koy wax waaye liñ koy vingt et goro liñ koy liñ koy màndaxeel ci li ñu xam nun mu miin ko mooy quatre-vingt-cinq grammes quatre-vingt-cinq grammes or ku ko moom ren ba déwén war nga koo asakaal ku ko moom ren ba déwén war nga koo asakaal bu fekkente ne argent la xaalis la boo ci amee cinq cent quatre vingt ren ba déwén war nga koo asakaal loolu mooy seen nisaab bu ko defee lan moo cay war la cay war mooy rubuul ashr rubuul ashr bi mooy dixième bi un quart de dixième nu mën a toll boo ko séddalee fukki xaaj nga jël benn ba séddale ko ñeenti xaaj benn xaaj boobee mooy asaka un de dixième loolu mooy xaalis ak or bu fekkente ne dafa nekk sunu xaalis bii nisaab bi mooy lan nisaab bi ba tey mooy bii ñu wax ci or walla bii ñu wax ci xaalis seetal li nga yor ci xaalis su ma nee jënd quatre-vingt-cinq grammes or bu boobaa war nga koo génnee asaka bu amee ci yow at xaalis CFA bi nga yor yor naa ci lu mën a jënd quatre-vingt-cinq or wala ma yor ci loo xam ne mën naa jënd cinq cent quatre-vingt-quinze yu xaalis bu boobaa bu amee ci man at war naa koo asakaal lu ma ciy génnee rubul onshri moom itam nga ciy génnee waaw deux virgule nga ciy génnee deux virgule cinq mooy lan mooy ne alal ji nu mu mën a toll nu mu mën a tollu diviser ko quarante boo ko diviser quarante rek lu génn rek loola mooy asaka su ma amoon cent millions bu ma ko diviser quarante lu ma jox rek loola mooy asaka ja su ma amoon un milliard su ma ko diviser quarante lu ma jox rek loola mooy asaka ja su ma amoon deux cent mille bu fekkente ne deux cent mille danañ ko génne asaka ne wóorul ne danañ ko génne asaka tuut na waaye am naa cinq cent mille wala six cent mille su ma koy biir ne asaka naa ko diviser quarante rek su ma ko diviser quarante loolu mooy asaka kon loolu ci ñaari weccet yi ak yi taxaw seen place muy xaalis yi mu des léeg-léeg de or xam nañ ni nit ki mën na cee yor loo xam ne nii takkaay la takkaay la bu dee góor dafa araam ci moom moo tax lu ci yor ci takkaay moom dañ ko da koy asakaal moom am boroom xam-xam yi wuute foofu ndax dafa araam ci moom mu yor takkaay lamub or walla lamub xaalis dafa araam ci moom bu dee jigéen mi nga xam ne daganal nañ ci moom nag mu sol or walla mu sol xaalis foofu la wax ji nekk foofu la boroom xam-xam yi amee ay wóote euh, li ñuy sol walla ñu di ko able ndax léeg-léeg itam du ko du daage ni moom dong moo koy sol waaye ku ko soxla mu abal la ko loolu àtteem ci li ëpp ci boroom xam-xam yi mooy ne duñ ko asakaal waaye nag li gën a wér li gën a wér li gën a wér mooy na dañ koy asakaal ndax kat texte yi ñëw yépp di asakaal or ak argent setti wuñ bu ñuy sol ak bu ñu solul amul benn bu ko ci setti te sax nag gis nañ firnde ju wér yonent jenn jigéen joo xam ne dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ju jigéen doom ji jigéen ji sakk takk ñaari jara ñaari lam yu dijji yoo xam ne nii or la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax da nga asakaal lii mu ne ko déedéet mu ne ko ndax danga bëgg bu yowmal xiyaamee ñu soppil la ko ñaari lamis sawara takkal la ko mu ne soxna sa daal di tekki lam ya daat koy jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu day wane ne euh, lii ñuy xam ne dañ ko dañ koy sol doonte bo li ëpp ci boroom xam-xam yi nee nañ duñ ko asakaal waaye ñi nga xam ne ñooy gis ñooy mu xaqiquun yi di kii seet euh, texte yi bu baax a baax ñoom lañu wax ne la gën a wér mooy ne dañ koy asakaal kon asakaal ko moo gën a wóor ci bañ koo asakaal yow jigéen ji nga xam ne dangaa yor lool amaa nag bu fekkoonte ni jigéen ji dafa yor ay takkaay yoo xam ne nii da li mu koy doyee dencee ko xaalisam la koy doyee te ñu baree bari ci jigéen ñi dañ koy wax naa na asak bi kat moom denc xaalis la rek bu fekkee da koy dencee xaalis wala muy nekk loo xam ne da koy luye loola moom da koy asakaal moom loola moom werante du ci dugg da koy asakaal moom waaw ah, li muy sol kay la werante wi nekk waaye la nga xam ne da ko wut ngir dencee ko xaalisam ak di ko luye loola moom da koy asakaal loolu ci ñaari weccet yi bu ñu demee ci xaalis yéetam nag mbirum bor day daal di taxaw bor bor nag ñaar la bor boo xam ne yaa ko fa ba yaa ko fa ba waaye boo demoon léegi ki ki la ko yoral fay la bor boobu boo ko ba boo ko fa bàyyee fukki at at mu ne da ko asakaal ndax yaa ko fa ba bu fekkente ni bor la boo xam ne nii nag bawoo fa bawoo ko waaye kala ko yoral moo nanguwul a fay wala mënul a fay bor boobee bu fa amoon fanweeri at itam boo ca jotee menn at rek nga koy asakaal kon lii lu aju la ci euh, xaalis lee ñu doon wax colaayee di aju ci euh, or ak argent yàlla nañu yàlla defal ak dégg ak topp aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokki jullit yi gannaaw bu ñu santee yàlla julli sëlmal ci ab yonentam ñu dem ci bu am solo muy li ñuy wax roodu tijaara muy march marchandise marchandise dañ koy charte mu mat nisaab nisaab mooy fa nga xam ne bu fa àggee ñu asakal boo yoree marchandise moo xam ne nii boo ko xayma woon mu jox la maanaam valeur ba jox la lu mën a jënd quatre-vingt-cinq grammes yu or wala mu mën a jënd cinq cent quatre-vingt-quinze grammes yu xaalis marchandise moomee asakaal ko day war ndax mat na nisaab waaye danañ ca charte itam xawalaanul xawl na am at ci say loxo ba mu matee nisaab ba noppi na am at ci say loxo bu ko defee nag lan lañ cey génnee mooy lañ doon génnee ci xaalis rek rubon l'oncherie lañ cey génnee waaw waaw un quart de dixième lañ cee génnee waaw deux virgule cinq waaw loolu lañ cey génnee wala nga xool nu mu toll valeur wa nu mu toll nga diviser ko quarante lu mu la jox loola nga cey génne loolu moom la ñuy wax ci marchandise ak charte yaag nañ koy génneele asaka bu ñu dikkee ci li génne ci suuf li génne ci suuf mu mel ni ay pepp ak i yooyu dañ koy asakaal danañ ca charte nag am nisaab naanaam na àgg fenn nga doog koy mën a asakaal wala boog nga doog koy war a asakaal waaye nit ki lu mu am rek bu ko neexee mu asakaal doonte matul nisaab loolu lu jar a xam doonte matul nisaab mën nga koo génneel asaka waaye nag fa muy waree nag mooy bu matee nisaab lii génn ci suuf kañ lay dugub jeeg ceeb beeg nangam jeeg kañ lañ koy génneel asaka bu matee nisaab nisaabam mooy lan mooy xamsatu aw suq am nattukaay la boo xam nii boo ci amee juróom biñ ko xoolee li nga xam ne moom lay tollool ci sunu jamono jii ci nattukaay yi ñu xam peesekaay yi ñu di peese di pëse soo bayee am juróom benn bërigo mën ngaa commencé génnee asaka waaye bu matt bu manqué juróom benn bërigo asaka waru ca boo ko defee da nga koo coobarewu da ngaa coobarewu rek waaye asaka waru ca waaw bay gerte amoo lu dul ñetti bërigo wala ñeenti bërigo wala juróomi bërigo yooyu yëpp asaka waru ca waaw moo xam gerte la wala euh, euh, ceeb la wala euh, dugub waaw bu ko defee nag liy génne ci suuf dafa bari am na lu ñuy wax légumes yi muy xadrawaat yi waaw yooyu day génn ci suuf waaye li bëpp li ëpp ci boroom xam-xam yi dañ ne duñ ko génnee asaka waaye li gën a wér laa wax mooy ne lépp loo xam ne nii nekk na ci alal ju bari dañ koy génne asaka loolu mooy li gën a wér ñi jëm foofu ñoom la seeni gëstu gën a xóot waaw damaa am pombiteer boo xam ne nii am naa ci cent tonnes pombiteer génne ko ci suuf ñu ne ma doo ko asakaal ndax bokkul ci yee ñu doon wax nekkul loo xam ne dañ koy denc nekkul loo xam ne dañ koy dunde walla nàngam déedéet génnee ko asaka moo gën a wér niki noonu kaani gaag batañ sa baag lépp yooyu yépp génnee ga moo gën a wér ñàkk génnee ga ca yooyu kenn du ca charte atal na am at déedéet wa aatu xaqahu yawma xisaadihi fa nga góobee rek génneel boo doon récolter Euh, deux fois trois fois cinq fois récolte bu ñëw rek da koy génneel asaka waaw ko defee li ci des mooy ar rikaz ak almaadin rikaz nee naa la mooy denc yooyu xam nga léeg-léeg nit ñu jëkk ñaatam dañu daa yori alal ci ñoom lu ci ëpp ay or lañ doon yor aki euh, ay xaalis ah bu fekkee da nga koo fekk ci suuf gis ke loo xam ne nii màndargam kéefër la ñu seeni tur yuñ ca bindoon wala yuñ ca yoo xam ne ñoo ko ca dessin woon da ngay xam ne kii lii doomu aadama mas na koo moom loola moom la ñuy wax rikaz loola boo ca boo ko jotee da koy génneel asaka da nga koy génneel asaka kenn du ca charte ne na mat nisaab wala na atal da koy génnee asaka li ci des mooy maadin yi li nga xam ne moo xew tey pétrole yeeg gaz yeeg zircon yeeg nangam yii yëpp ñu ci génnee lu nekk kenn du ca charte am nisaab ca dañ koy kenn du ca charte atal ca dañ koy génnee asaka yooyu nag ñu cay génnee xumus un cinquième lañ ciy génne un yem pétrole Sénégal un yem zircon Sénégal un cinquième euh, euh, euh, gazu Sénégal loolu xool leen ba xam bu fekkonte ne dañ koo jox fuqaraa ak masaakin yi ci réew mi kenn dee fi nekkati faqiir dootu am kon loolu ñu xam ko bu baax a baax bu ko defee nag asaka asaka ndax manees da ko avancé maanaam xam nga kenn waxu la ne booy asakaal weer sàngam ngay ngay ngay asakaal yaay tànn rek weer wu la neex waaye boo tànnee eh, weer wii bu dellu see déwén xamal ne asaka waral waraat na la bu fekkente ni lu mat nisaab ma nga fa dama tànnoon weer weeru muharram laa tànnoon ne ci laay génne muy tamxarit gi ñu nekk ci laay génne asaka yàlla def ci weeru koor wi biñ tolloo ci weeru koor wi ma ne ma dégg boroom xam-xam bu ne génnee asaka ci weeru koor kat moo gën génnee ko ci weeru muhar muharram ndax joxe asaka ci weeru koor dafa am beneen yool boo xam ne nii dafa am fulande guñ koy fulande goo xam ne nii bu dee ci weneen weer du ca am ma ne ah ah kon kay man naa joxe asaka samay asaka ren naa ko joxe at xarit laa doon laa daa joxe ñëwagul waaye mën naa koo joxe ngir dàkk waxtu wu baax woowu wala may dàkk weeru tabaski fukki fan yu fukki fan yu jëkk yooyu nga xam ne génn def ci lu baax dafa am solo may ma génnee ci asaka ca fekk dat ba jotagul loola mën naa nekk ndax loolu dafa nekk li saalixil fuqaraa boo ko defee intérêt ñi ngi koy jox la intérêt ñi ngi koy jox la mën nga koo def niki noonu euh, bu fekkonte ni dangaa gis ne fuqaraa yi kat di ñuy di ñuy jànkonteel metti na lool ca ndég ba féeg tam xarit ga may doog a génnee aseka ah bu ma ko génnee woon léegi jox leen ko moo gën bu boobaa tam may nañ la nga daal koy génnee daal leen koy jox donte tam xarit ñëwagul bu tam xarit dikkee bu boobaa génnee asaka du la war kon yii bokk na ci li nga xam ne day tax ñuy anticiper asaka bu ko defee nag euh, danañ waxtaane bunt boo xam ne bu am solo la mooy masaarifu sadaqaat ah masaarifu sadaqa mooy fi ñuy asaka boo ko génnee ba noppi ñan lañ ko war a jox ndax foofu ay njuumte yu baree bari dafay am yàlla nañu yàlla defal ak dégg akub topp ñuy fàttali ñëpp na yéen a ngi ci weeru muharram weer wi nag ñu baree bari dañ ko doon tànn di ci génne seen i asaka ni ngeen faxa ba yéen ñëpp ku ko defagul woon na ko gaaw def ko génnee asakaam aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah lii wa lakum wa li yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV la chaîne au service du Saint Coran. yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche.